ñëw tey ci doxu nemmeeku bi nga xamante ne defoon nañ ko àjjuma bële ma ànd ak euh, maire de la ville de dacar ak maire Médina mi nga xam ne ci biir circonscription lañ nekk ñu ñëwoon fi ndax mën a wane euh, liggéey bi nga xamante ne def nañ ko boo leen euh, fàttalikoo at ci ginnaaw waa Sandaga dañ leen waroon jëlee fi ñu ne andi leen fii ak feneen foo xamante ne ay lieu de recasement la ngir ñoom ku ci ne mën a ne fenn am foo xam ne negu neewu ndëgëniku lañu fay nekk ba euh, liggéey bi nga xamante ne moom la ñu war a def muy tabaxaat Sandaga defaraat ko ba mu mel na mu war mel ñu mën ko def ñu ñaan ñu nañu daal ñoom li ñu gis mooy faaw ñu may leen euh, ab diir ndaxte dañu bëgg daal ñu jox leen foo xam ne bu ñu fay nëgëndiku yi na nekk ci condition yu baax loolu it bi ñu ko déggee ñu xam ne lu yanu maanaa la ci lañ jël préparé defar marché boo xamante ne gis ngeen ko commerçant yi dégg ngeen li ñu ci wax mucc na ayib couloir yi mu war a am am na sécurité bi mu war a am am na ko cantine yi mel na na mu war a mel électricité ñëw na lépp ñëw na. léegi nag date ba jot na tey jii lañ ñu leen waroon ñëw ñoom visiter ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a fës ci euh, syndicat wu commerçant yi maanaam seen délégué yi muy Daouda Diouf ak Jibi Jaxate maa ngi leen di woo di tudd seen waxtu wi jot na nañu woo seen ay euh, ñi nga xamante ne ñooy seen naatangoo ñu ñëw visiter ci ku nekk xool cantine bi nga xam ne moom lañ la jagleel boo noppee nga ñëw def sa abonnement électricité Sénélec may nañu équipe boo xam ne dina nekk fii à partir de lundi équipe bi ci ñetti fan danañ la defal sa abonnement électricité bu ko defee ñoom ñëpp ñu may leen fukki fan ak juróom maanaam deux semaines ajjuma tey bi mooy le 19 ajjuma bi ci topp defe naa suma ma juumul mooy le 26 ajjuma bi ci topp mooy le 3 juillet may nañ leen ba àjjuma 3 juillet bu ko defee ñoom ñëpp ñu mën a ñëw daje si xam seen cantine ba pare tuxu si fi bu ko defee ñu mën a euh, doxal marché bële liggéey ko liggéey bu mucc ayib ñun nag état lañ état wax dëgg moo ko war dañu waxoon ne euh, danañ leen utal surtout recasement defe naa def nañ ko recasement baa ngi ni mucc ayib ku ne boo sañoon defe naa ne marché yi am Dakar yëpp amul bu tane bii mhm. ñaareel ba ñoom li ñu waxoon tamit mooy bu ñu leen ko defalee dinañ ñu yombal liggéey bi bu ko defee ñun ñu mën a tàmbali liggéeyu Sandaga ndaxte Sandaga dafa bokk ci xolu Ndakaaru ci xolu Sénégal doon loo xam ne ci histoire dañ ko gis di ko xàmmee mu doon ci mandargaay Ndakaaru ñun ñu jël engagement ak communes yi ne danañ ko defar defar ba ca war nag faaw nit ñi génn ndaxte bâtiment la boo xam ne na mu mel mën naa daanu mën naa yàq lu bëri engagement boobu ni ñu jëlee engagement bi def ko ba na mu danañ jël engagement boobu def boobu it na mu war a am donc ñoom it nañ respecté seen engagement waxtu wi jot na na ñu ñëw gëm yàlla xam ne fii kat bu ñu fi ñëwee yàlla dina leen fi andil seen wërsëg ñun li ñu ci war ci accompagnement ci communication ba nit ñi xam ne Sandaga fii la ne léegi danañ ko def bu ko defee ñu mën a liggéeyal population yi ndaxte li am solo mooy sénégalais yi mën di dugg di génn ci ay marché yu set yu organisé yoo xam ne risque incendie wala accident du am. ñuy fàttali rek ni ñun suñu marché ba nga xam ne dafa euh, dañ dañ ko tëjoon. ah pour raison yo xamné président it ba ko avancé nangul nañ ko ko ñu tek ci mu làkk e eh, ñu indi woon ñu fi ñun depuis 2014 ñoo am lo xamné ne nee woon nañ bu mu tabalati commerçant parce que nit kuy daan dooleem nga xey rek jël ko jëlé ko jëlé ko famu nekkon xamoo foo jëmé jë jëmee loolu dañoo ne woon bu mu amati ba daaw ba ministre bi ni ñëwee ne dañuy defaral ñun ñu taxaw ne ko do doo defar tant que defaroo de recasement ah tay nak ba ñu ñëwee gis nañ ci de recasement boo xam vraiment kawé na suñu njort li yaakaaruñ ko ci woon kon vraiment dañ féliciter euh, ministère de l'urbanisme Nous, moom defe ñun dañoo nekk sur la voie publique te damay woo sama mbokk commerçant yëpp defe naa euh, dëkk suy dox ñun ñun du ministre ministre bi su voie publique bi defe benn yoon yoon lu ko fay population bi ñun ñoo ko kon voie publique du commerce ah euh, lu ñuy woow le gouvernement kay lancé bu mu jël pour la modernisation des marchés mu tenir ci compte ña nga xam ñu ngi ci voie publique bi le maximum ñu jël leen ba nga xam encombrement boobu am ci voie publique bi mu deñ fii waaw ci lim ñaata ngeen toll bon ci lim nak man ñama mëna wax moy ñinga xamné défé na eh, dama leen di inviter yéen les médias et le gouvernement tay su ngeen paré eh, su ngeen mëne dem visiter ñinga xamné depuis 2014 ñu ngi leen fa euh, recaser ci eh, lim ñun 945 de petite et moyenne entreprise yi nga xam ne ñoo occupé woon bâtiment central bi mais quant à ñu ngi ñu ñuy recaser fii vraiment euh, xëy ministre bi dina leen si jox euh, détails.